Mamadou Sy Albert ñu ngi lay nuyu di la dalal si réew mi. maa ngi fay voilà ñu waxtaanee li nga xam ne moom mooy élection territoriale yi nga xam ne euh, bañ ci génne yàggul tey résultat yi jox coalition Yewwi Askan Wi ne euh, moom moo daal di euh, daan daanaka ci yenn diwaan yi maanaam conseil départementaux commune ak ville yi yu ci mel ni Dakar ak Ziguinchor moo ci daan Benno Bokk Yaakaar tey nan nga jàngatee résultat yooyu. waaw mën nañu wax ne mën nañu wax ne que Yewwi Askan ak opposition am nañu ndam am nañu ndam politique bu jël jël nañu jël nañu département euh, Dakar jël nañu mairie ville bi euh, bon euh, parcelle Guédiawaye Rufisque ak Thiès Ziguinchor ak yeneen ak yeneen donc am nañu am nañu ndam ci ci ville yi mhm. loolu loolu moom lu am la mhm. wante aussi Benno Bokk Yaakaar nee na moom moo ëpp li mu gagné ci département yi mhm. loolu mën nañ ko nangu li wone mooy que su Benno amee défaite ci ville yi am na victoire ci yenn ci majorité départe département yi mm-hmm. euh, loolu aussi euh, euh, mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko nangu mm-hmm. lu ñu mën a aussi jàngaat ci élection locale yi mooy que dafay mel ni ah, ci ville yi en tout cas Sénégal yi dañu bëgg a soppi dañu bëgg soppi mairie yi mm. donc mooy changement am na ñu ngi Sénégal yi loolu la ñu laaj. ñu mm-hmm. changé ñu doxalin mairie yi. Mm-hmm. gën jublu ci euh, soxla askan bi. def naa loolu aussi ja jàngat beneen jàngat bi aussi mooy que majorité bi mu neex ko wala mu bañ ko neex bon euh, lajjana ci élection locale ci ville yi. Mm-hmm. Euh, ab défaite défaite bu bu bu bu rëy la. dee parti APR wala Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo yore nguur. nga dem ci gox yu mag yëpp ñu sanctionné la loolu défaite euh, défaite politique la. tey merci ba nga ko préciser ci grande ville yi benn bokk yaakaar ñàkk na fa looloo tax sax ñoom ba ñu capitaliser lépp euh, ci li nga xam ne moom la ñu xayma euh, bokk na ci ay vingt neuf vingt neuf yi nga xam ne tey mën nañoo wax ni am nañ ko ak it liste parallèle yi nga xam ne seeni ñoon ñoo fa nekk ba jàpp ba tax ñu jàpp ne ñoom ñoo gagné tey nan nga décrypter seen jàngat gi ñu def ci élection yi. ñoom dañ dañu mel ni dañu mel ni euh, mooy fuite en avant fuite en avant <laughs> dañuy daw res cest nga mënoo wax dem nga élection euh, perte nga wante yow yaa gagné mhm. loolu wax jooju euh, dalul dalul xel mhm. dañu dañu waroon xool mën nañu leen nangul sax ñoom ñoo ëpp li ñu ci département mhm. wante booy seet Sénégal ni mu tëddee dafa am ville dafa am campagne ñoom ci ville yi la perte Euh, nañu nañu nañu xam ne que perte nañ ci ville yi mën mënoo perte région de Dakar nga perte Thiès nga perte Ziguinchor euh, nga nga continuer di wax yu yaa département yu gën a bëri. Mm-hmm. loolu euh, en tout cas sa jàngaat des na des na ndax doo gis. li nga xam ne lii xew na ñëpp teg ci euh, seen bët. tey nga wax ko tamit euh, nan nga jàpp ne euh, naam bëgg nañu soppeeku bëgg nañ changement mais lan nga foog ne moo waral gars yi bëgg changement boobule ba mu jaral leen ñu vote ñeneen ñu dul ñi fi nekk. waaw man ci sum li ma gis lu doxul. waaw li ma gis mooy que ville. Hmm. Sénégal ni mu tëddee. soo xoolee. ñu ñuy defaree ville. Hmm. dafa am urbanisation sauvage. Hmm. problème Sénégal yëpp yëpp yëpp mu ngi ci urbanisation bi. Hmm. nu ñu nu ñuy tabaxee euh, gox bu bees. boobu euh, exemple bu ñu mujj am fii mooy Kër Massar def nañ ko département. bon mais boo xoolee tey jii nga dem Kër Massar seen problème dafa bari problème assainissement problème environnement problème éducation problème santé ay problème ñoo daje ci biir ville yi. loolu moo tax ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci ville yi dañu àndatul ak ni ñuy gérer mairie. Mhm. loolu moo tax ñu sanctionné leen ci ci euh, ci ci ci ville yi. Mhm. Euh, que yi dañu bugg am maire yu bees. mais wante aussi maire yi nga xam ne mën nañu bugg nañu liggéey. Mhm. liggéey seen euh, liggéey seen gox. mais nangu aussi population yi participer ci développement locale bi. defe naa daal loolu mooy li ñu gis. Euh, que que Sénégalais yi coppite boobu la ñuy laaj loolu la ñu soxla loolu la ñu nam. Mm-hmm. Euh, euh, loolu mooy expliquer vote populaire parce que boo xoolee même ci élection. même Dakar rek. Mhm. ñi nga xam ne ñoo joxoon APR victoire 2014. Mhm. mais ñoom ñoo sanctionné APR 2022. Euh, gis nañu ñenn ci ñoom. Euh, ñu bokk benn bokk yaakaar di wax na résultat yi jaarul yoon ci yenn gox-goxaan yi li ni mel euh, ndax yelloo na maanaa. non mën nañu leen nangul mën nañu leen nangul dañu leen dóor ñu am defet mhm. bëgguñu croiser les bras ne nañu nangu lu ñu daal. politique moom dafa laaj euh, su fekkente da ngay xeexu politique même bu dee da da nga am défaite. Mm-hmm. war nga xeex. Mm-hmm. mën nañu nangu nga xeex euh, su dee ci yoon nga war a dem nga dem ci yoon. Mm-hmm. luy loo am baax na. waaw wante nag loolu warul tere nga nangu sa défaite. politique aussi dafa laaj soo amee euh, ndam nga wax ne yow am nga ndam. wante soo perdee da nga war nangu perdre nga. tant que nanguñu perdre nañu. du ñu xam lu xew. et loolu dina indi njumte yu bëri euh, ci ci euh, yeneen tanu et surtout ci élection ñi nga xam ne mooy élection législative yi ñu demal. mu am tamit beneen mbir euh, jëm ba tey ci Benno Bokk Yaakaar laata élection yi ku ci nekk yaa ngi doon bàkku ne ci élection yi bu buñ ci jógee ci la ñuy natt seen bopp tey natt nañ seen bopp ndax Benno am na avenir ndax nguur gi fi nekk sax laa mën a wax am na avenir. ah seen avenir moom dina dina jafe. dina jafe parce que ñu ngi ci lu ñu wax crise d'orientation mhm. euh, d'orientation mooy euh, xam nga foo jëm euh, tey ji APR loolu moo ko dal xamatul fu mu jëm xiiroo ak ŋaayo mu ngi seen biir boo gisee aussi allié yi muy réew mi muy PS ay jafe-jafe ñu ngi ci biir parti yooyu mhm. boo bennoo daal nekkatul ni mu bennoo xamoon 2012 ak 2014 seen doole dafa wàññeeku bu baax a baax. Mhm. loolu mooy firnde que euh, seen ëllëg politique moom dina dina dina jafe xanaa ñu toog nag waxtaan seen biir weccante xalaat jubo ci benn kàddu ci benn orientation loolu mën na am wante dina dina jafe beneen mbir mi aussi mooy sénégalais yi lu leen sanctionné am na lu tax am na lu ñu laaj. ci wàllum développement local am na lu ñuy laaj ci wàllum développement état central bi mhm. est-ce que gouvernement bi ñu nar a taxawal dina euh, dina dina dina dina am priorité li nga xam ne priorité yu méngoo ak sénégalais lu ñuy xaar mhm. euh, loolu aussi euh, suñu amul en tout cas suñu deful gouvernement bi nga xam ne dina mën a taxaw pour saafar pour indi saafar ci problème sénégalais yi mhm. soo moytul aussi loolu dina dina yokk jafe-jafe gouvernement bi ñu nar a taxawal opposition bi gis nañ ci wàllu euh, dellusi na wàllu mi nga xam ne euh, moteur bi euh, parti démocratique sénégalais la bi lépp yoon di élection bu njëkk bi nga xam ne dugal na ci loxoom gannaaw ba mu ñàkkee pouvoir bi ndax gis nga ne seen dellu si réussir nañ ko. déedéet réussir ñu réussir su dee rek dañuy xool seen résultat moom. Hmm. PDS commune yu mu amoon sax dafa am na yu mu ci perdre. Hmm. te fu mu nekk nii amuñu sax trente communes. yi nga xam ne amoon na cent ak quelque. Mhm. donc euh, seen doole wàññeeku na bu baax a baax mu muy PDS muy wàllu. Euh, loolu nag aussi lu muy wone que mooy ba léegi depuis 2012 ba tey ji PDS jógugul jóg jógugul dafa daan daan bu metti amuñu njiit Abdoulaye nekku fii Karim nekku fii amul benn direction même bu dee def nañu renouvellement seen commité seen euh, seen organisation am na c'est xale yu bees yu jël responsabilité. Mm-hmm. mais des na des na ba ba léegi PDS fi mu nekkoon daal euh, nekkatul moteur de l'opposition ay jii booy comparer wàllu ak yeewi yeewi askan yeewi askan moo moo nekk force euh, vraiment ci biir opposition bi. et justement yeewi askan wi am tey noo ko gisee nangu ko jàngatee. waaw ñoom ñoom yow askan mën nañu wax ni am nañu ndam ndam politique boobu bu rëy. Mhm. wante loolu euh, de waruñu xa euh, waruñu yem foofu. Mhm. na ndam la wante ndam boobu am na lu mu nëbb lu mu nëbb mooy que am nañu responsabilité. léegi euh, ñoom ñoo nar a gérer ville de de de Dakar. Mhm. ñoom ñoo war a majorité commune de département bi. ñoom ñoo war nar a commune yu bari. donc loolu responsabilité la il faut ñu wone que mën nañu. Euh, gérer collectivité territoriale. Hmm. loolu le défi bu rëy la pour ñu wane Sénégalais yi am nañu confiance Sénégalais yi mais aussi nañu jëf ñu wone que mën nañu mën nañu gérer mieux que la majorité paysanne loolu moom euh, défi bu bu rëy la. Hmm. beneen défi bi aussi mooy euh, ànd nañu am nañu ndam. Hmm. wante est-ce que dinañu gën a renforcer seen unité. seen seen bopp yaakaar nga ne dinañ gudd fan. ah dina dina dina jafe dina jafe parce que boo xoolee Yewwi Askan nu mu tëdd nii euh, euh, Khalifa candidat candidat normalement candidat la war a nekk ci présidentielle deux mille vingt quatre. Hmm. Sonko naka noonu ñoom ñaar. Euh, suñu toogul waxtaan ba ak pur ñu ñu naka la ñuy fexe ba dem àndandoo dem ci législative nan la ñuy fexe ba àndandoo ba présidentielle suñu toogul waxtaan seen biir euh, soo soo moytu dinañu am ay problème de leadership ku nar a ji ku xëccoo bi daal euh, suñ ko moytul dina wàññi seen doole bu baax a baax. Mm-hmm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Mamadou Sy Albert. merci Elisabeth jërëjëf jërëjëf.